الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تغفر الذنوب وبكرمه تستر العيوب وبقدرته تفرج تفرج الكروب وبقوته ينصر المغلوب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 sant yàlla mi ñu may kartan bañ mën a taxawee ci ñetti xéewalam yooyu di àddu ngeen di déglu suñuy kàddu yal na yàlla fay leen yoolab ku xuy ju xooteeb yàlla yal na yàlla fay ñu payoor ak ku xoote jëme ci diine yàlla ji ci barkeeb annidaau saalis wa xamsuun nidaaw bi mooy assaalisu wa xamsuun sama boroom di ci wax ak saxaaba yi di wax ak ñoom ñi gën a takk seen fit wi jëm xare ji bu leen dara gàllankoor walis xare ànd ak yonantu bi sallallahu alayhi ñi xeex yëkkati diine yàlla ji bu leen ko ay tool yu ñor muy seen tool yu tàndarma ya ñor ci waxtu wiñ koy war a witt ñi bëgg ko def ngànt pour bañ a dem bu doon jamono ji yàlla woote xare baykat yi naan suñu dugub yee ñor dañoo war a góob ñu ni suñ tool yi gerte yi dafa ñor dañoo war a gas ndax jooju jamono génnee fi baykat muy dem di tukki mbaa muy dem dana nekk lu jafe-jafe pare bii nag yàlla di wax ak ñoom jamono jooju la leen fekkoon ñoom madinatul munawwara ak la ko wër muy xaswatu tabuuk muy xare boo xam ne bokk na ci xare yu mujj yonantu bi xare gannaaw fatxu makka la xew gannaaw ñu ne xaswatu ni ci la xew waaye jamono jamuy xew dafa tàng mbóoyoo lool ba jéggi dayoo boole kook lépp luñ amoon def ko ci nawet bi ñor na ñu yàkkamti pour war koo witt balaa yàqu yàlla ne xuus leen mbóoyoo mu tàng mi dem ca xare ba su ëllëgee loolu man leen a jural ngeen mucc ci tàngooru safara wi nga xam ne moo gën a tàng mbooyo mi tànkam lu leen te ngeen wan gannaaw bañ a déglu ñi leen di tayalloo naan waqaalu laa tanfiru fil xar ne leen rek naaru jahannama ashaddu xarran law kaanoo yafqahuna tawba aaya 81 waaye tamit ñooñu buñ leen yàqal ñaareel bi tamit bu leen déglu ñi leen di wax ne waay waay da ngeen am ngànt ndax jamono ji dafa xat da a war a toppatoo seen tool yi yàlla ne wan leen leen gannaaw ne yaa ayyuhal lazina amanu waay waay yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm yàlla maa lakum xanaa yéen xay moo leen dal isa xiila ba waxeef lakum ñal ne infiru foñ leen fi pour xeex ngir yëkkati diine yàlla ji afaaqaltum ngeen ni duus duus lu tafaaqaltum la woon su ko defee ngeen ni duus duus lu rek di profété ay ngant ilal ardi pour sax ci suuf ba nga dem waaye damay laaj ndax araditum bil xayaati dunia ndax yéen da ngeen a gërëm dund gu jege guy jeex gu ñàkk solo gi ngeen bëgg a tànnee xëfal ko ci kaw minal aaxira ci dund ak waaye xanaa yëgu leen fa maa mataawul xayaati dunya déet yóbbal ak àdduna gu jege gii boo ko comparé ak fil axirati illa lu dul muy lu néew. alaxira boo ko doon comparé ak àdduna day mel ni sa pusa boo jël dugal ko ci géej tabaarakallaahu la cay tooy di àdduna la ca des lépp di alaxira kon waay waay bu leen jëndee njariñ lu lu dul jeex njariñ luy des nekk ci seen kanam ci njariñ luy jeex. lu ñàkk solo lii nga xam ne lum la jox xeñ na la ko keroog ba mu la ko joxee la la ko xeñ yàlla ne nag maa ngi leen di dànkaafu illaa tanfiru su ngeen fajut dem xeexi ànd ak yonantu bi yuazibkum azaban aliman yàlla moo leen di mbugalal boppam mbugal mu rëy donte fekkee ngeen badar fekke uhud fekkee xunaynu fekkee fathu makkata tus dana leen fi jëlee tamit wa yastabdil qawman xayrakum da leen fi jëlee carrément indi fi ñeneen ñu dul yéen te nag su boobaa wala tadduruhu shay an mënu leen a lor yàlla dara ndax jëriñu leen ko ba ngeen ko ba koy mën a lor seen topp yàlla gi xale yu bëri dafa yokku dara ci nguur ak yàlla ga su ngeen bonoon yéen ñëpp a mel ni iblis mënu leen koo wàññi dara ndax wallahu ala kulli shayin qadir ku mën lépp lu mu leen di defee te maa ngi leen di xam ne illaa tansuruhu wallaahi su ngeen dimbali diine yàlla jile jaaree ko ci yonantoom bii faqad nasarahu llahu yàlla mum dimbali na ko su ngeen dimbaliwut seen yonantu bii wallahi faqad nasarahu llahu yàlla dimbale na ko kañ la ko dimbale is axrajahu alladina kafaru saaniya snayni isma fil xaari jamono ji nga xamee ne xéeféer yi génnee nañ ko dëkkab maamam dëkkab baayam mu màggee fa ba xëy am juróom fukki at yu teg ñett ñu génnee ko ko waaye nag yéen yàlla ne ah yéen da ngeen kii waaye taxaw leen man xuntuma muy jamaat ne man maa koy tàpp xuntuma tàpp ko ne ah yéen yéen a nekk ay soldaar yu takkaayu pour dal ci kawam waaw waaw ah lëngeen jargoñ na man maay nekk soldaaram mi koy protéger pi tax ma ak nenam ya ne maay nekk garde corps ba ban perte ngeen su ngeen ko wanee gannaaw yéen ay perte kii ku ñëpp bëgg la ku lépp bëgg la su ngeen ko bëggut profité ci ñoom profité ci moom ba yàlla bëgg leen ngeen perte waaye fàttalikul is yaqulu li saahibihi laa taxsan inna laa maana fàttalikul ba muy waxaan dañu waram ba Aboubacar Siddiq ma ngay jooy ngir cofeelam ci yonantu bi naan noon yaa ngi ni bu ñu rayee rek sa mission jeex ñun ñëpp ñu al ko dem safara man su ma dee woon sax garaawul yonantu bi ne ko bul jàq bu luy sa xelaat ki ñaar ñoo xam ne yàlla leen ñetteel foofa nag fa ansalallahu sakinatahu alayhi yàlla wàccee ak dal ci moom wa ayyadahu bi junoodin mu mu mu dëgëralee ko ay soldaar yoo xam ne lam tarawha yéen ñi sax gisuleen leen wa jaxala kalimata lisna kufara ka kafaru sufla jël kàddu xéeféer gi ñu doon woote seen diine ju yàqu jooja nekk ay caaxaan ak ay tappale di suufee rek wa kalimatullahi hiya al-ulya kàddu gi di diine laa ilaha illallah alquran yonent bi di kawe rek ndax mooy kawe lépp wallahi ku tax ku def lii mu ne ki ko def demoon mooy wallaahu te yàlla mu def ko nag asiisun hakiim loolu rek moo ci mën a tegu taw baa ngoog yaa jaa ngoog moom lay firi dafay ñaax bi dànkaafu bi ñemeloo saxaaba yi ci xare ji xare bii na xare bu méttee métti la ndax ñeent fa dafa dajee ci xare ba bi ci njëkk place bi dafa sori diggante ma diina ak tabu giñ war a xeexi ci place ba ñu tuddee balqaa u mat na juróom benn téeméeri maayil ñi bëgg ko dox ak tànk ñii war ay gëléem ñii war ay fas ñii toggoo ku dox nag juróom benn téeméeri maayil boo ko doon seet ci suñ jamono ji lu mu néew néew presque mat juróom-ñetti téeméeri kilomètre daanaka nga bëgg koo dox départ ba pare door a dem xeexi coono bu métti la départ leen dakaar ba gannaaw Tambacounda fa lañ joxante rendez pour war a xeex kon premièrement distance bi sori la Um, ndax foofa tey boo ko jëlee Tabuuk moo digale diggante ma Madina ak Dimishqa moo nekk ci digg bi juróom benn téeméeri mayil la à peu près loo demee Ibnu Hajar loolu la gëm léegi nag ñaareel bi jamono ji yàlla di sant yonent bi mu dajeeg saxaaba yi pour war a xeexi dara amut ndax lañ bayoon lépp ñor na te jëlaguñ ko maanaam wittaguñ ko muy tooli tàndarma yi mu ngi mel ni baykat bu mu fekk ci jamonoy dugub ju ñor ak gerte gu ñor la ma xamoon lépp investir na ko ci tool yi tabaarakallaahu waaye nag lam investir mënagut ko jariñoo kon premièrement distance bi sori na deuxièmement tamit alal juñ war a dimbali ko ca xare ba amagut waaye beneen bi ñetteel bi troisièmement dafa tàng jamonoy mbooyoo la mooy jamono yi nga xam ne naaj wi ñoral dugub yi heure boobu la mi ngi tàng jër xuus mbooyoo mi dem di xare ji yombul troisièmement wala quatre euh, maanaam quatrièmement tamit noon yaa ñu war a xeexal dañoo bëri romain yi lañ bëri lool dafi ay kuréel ah yii nag dajee fi dafa néew ci xare bu mu dajee ci xare yonent bi te ñaar fukki xare juróom-ñaaram yi xare bu ci mel nii yombut ci moo tax dafa métti moo tax xare bu yonent ma sa am dafa ko daan nëbbu ba mbir ma sotti mu door def déclaration waaye bii dafa teel a def déclaration bi fekk la ko sabab nag mooy tabaarakallaahu romain muy dañoo waxoon seen buur ba wan ko ne ko daal saxaba yonantu bi amatuñ dara te dañ daan dañuy jaar fii di jëggaani di wuti saam marchandise ñi bëgg nga yónnee ñu ay soldaar ni ñu dogaale leen fii ci balqaaw bu ñu ñëwee rek ñu dal ci seen kaw rayleen leen ñooñu nasaraani arab yi ñoo bind leetar Hiraql wax ko loolu ne ko waa ji nga xam ne dafay woote ak nubbuwatu deseetu dara xati beekoor lañ dund xat yi yëpp seen xalal ji yëpp yàqu na yónnee ñu ay soldaar rek su ko defee ñi ñi dogaale leen bu ñu demee saam di jëggi rek ñu dal ci seen kaw fi la yónnee leen benn général bu ñuy tuddee xabaaz mu ànd ak moom ànd naag moom ñeen fukki junne ci ay soldaar ba ko yonent bi yëgee nag tabaarakallaahu rek annoncé déclaré guerre ba ne leen départ leen préparé leen te buug lañ jëm wara dem xeexi fa joxe na rendez-vous bi ba pare duma ko faussé yëg naa ne amuñ mbooloo mu leen mën a dékku waaye yàlla doy na ndimbal amuñ alal juñ war a préparé guerre bi jamono ji tàng na seen tool yi ngeen bay ñor na te bëggu leen ko woon gannaaw waaye takk leen seeni bagage yi dem xare gi saxaaba yu bëri taa yàlla di layee mbooyoo meeg seen tool yaag ñàkk gaak foofa nag ndeysaanam ci la Ousmane ibnu Affan dafay jalooram juróy jë jaayante indi junney waruwaay ak la ca war a ànd lépp moom daal junney gëlëm la yu manqué juróom fukk juróom fukk ya manqué mottale ko ko ay fas keroog la wax ne àlla ya jëysu man laa jëysa la ku amut lu la war a mën a yóbbu ci ay ngànnaay amuloo lu la war a mën a transporter ci waruwaay préparé naa ko ma koy def keroog la yonantu bi kontaan julli jeexee naafila def safaak witar tàllal ay loxoom di ñaanal Ousmane di ñaanal Ousmane ba ganaar ga sat asalaatu xayru min annaw bi bam pare mu ne laa yadru Ousmane maa faala baadal yawmi Ousmane dara mënut ko lorte ak lu mën a defati joxe ci yoonu yàlla baax na de. joxe ci yoonu yàlla dana joxe maqaama ba gën a gaaw boo xam ne julli ay rakkaa saxoo jàng alquran a naafile yu dul jeex mënu koo joxe yonentu yàlla Muhammad tam lëmm benn seconde doom rek xaju ci àdduna bi mu jël guddeeg lëmm jagleel ko jënn jëmm lu ko ko may joxe kon yéen xalal yéen borom xalal yi dee leen joxe seen naafile gi ëpp doole ci naafile yi mooy joxe xalal ni ko bàyyi bu saaxo daan waxee yéen ñi dara seen naafile yi gën a foor mooy allahu akbar asalaamualeykum rek lu ngeen ko def doyut waaye yéen borom alal yii lu ngeen naafilaa ci xalal doyut su ko defee kon nag keroog la yonent bi jagleel maqaama bu rëy boobu Seydina Usmaan xare bi mi ngi xew at ci gàddaay gi yonent bi ba mu déparé dara desut war a dem xeexi da koo gaawa annoncé ñëpp yëg ko te loolu bokkutaana ni mu doon doxalee Mujaahid ak Ibnu Jarir ñu ne xare bi mu ngi xew gannaaw fatxu Makka gannaaw xaswatu ni gannaaw xaswatu Taif ci la yàlla digal yonentu beeg saxaabaam yi nañ génn ci jamonoy mbooyoo mi jamonoy ñorog seen tàndarma yi su ko defee tamit ñi war a dem ngir xeexi waaye booba nag ñu bari di provoquer ay ngant ñii di créer ay ngant na yàlla ne lan lu tax ngeen ni ay duus duuslu mel ni gàtt bu ñuy bëgg a rendi déedéet bu leen tànn liy jeex ci lu dul jeex àllaaxira du jeex mukk àdduna bi lu fi mën a nekk dafay jeex seen jëmm yu jeex seen xalal yi jeex seen njaboot yi jeex su boobaa nag kon dem leen ngeen jaxase ko ku dul jeex ak ku dul jeexal soo bañ a jeexal da ngay boole ku dul jeexal te ku fi nekk bañ a xare ji ala kulli xaal taamuloo benn ngànta am nga aw jubb ci lifaaq yonentoo ko wax man maata walam yaxsu walam yuhaddis nafsuhu bil xaswi maata ala suxbatin min annifaaqi loolu xam nga musiba la moo tax yàlla ne kon dem leen xeexi araditum bil xayaati dunia min al axirati fa ma mataau al xayaati dunia fi l axirati illa qalilun te àdduna amul solo kër ak ko xamul kër la adduniya daaru man laa daara la di xalali ko amul xalal wa maalu man laa maala la walaha yajmau man laa aqala la yonentoo ko daan wax imaam ahmad moo indi hadis bi yonentu bi ne àdduna daal mooy kër ak ko xamul kër képp ku jël àdduna def ko muy sa kër nga fiy dajale titre foncier yu dul jeex yaa perte yow de yaa am loo xam ne la la ko tax a jot dee a tax léegi tey nga dee ba ko fi mbaam moom mu toxalu bala fi waaye mu ne mooy xalali ko xamut xalal compte banque boo denc nga ne xalal perte nga compte banque bi am solo mooy boo jiital ci sa bàmmeel wa maa tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah moo tax mu ne nag kon nag comme kër la kër kër mooy kër ko xamul kër di xalali ko xamut xalal kon nag ko xamul xel rek moo cay dagale kooku rek mooy dagale ci àdduna moo tax yonentu daana wax ne man ahaba dunyaahu adarra bi axiratihi wa man ahaba axiratahu adarra bi dunyaahu fa aasiru ma baqa ala ma yafna imam ahmad bisaar ibnu hibaan xaakim bayhaqiyu jëlee ko ci xadiis abi musa al ashari wala asaari yu moo ko andi yonent bi ne képp àdduna ak àllaaxira ñaari wujj lañ koo ca man tëli moromam ma nga tëlee àdduna nag moo gën nga tëlee àllaaxira ku jël sa wujji àdduna teg ko ci sa wujji àllaaxira lor nga àllaaxira ku jël sa wujji àllaaxira teg ko ci sa wujji wa àdduna lor nga àdduna àdduna loroo xam benn problème mu ne kon nag tànn leen li lii des ci liy jeex àdduna yàgg-yàgg jeex waaye nag àllaaxira mooy lu dul jeex kon nag tànn leen àllaaxira mu ci kaw àdduna lii la yonent bi jàngale daana wax ne dëddul àdduna yàlla bëgg la dëddul loxo ci loxol nit ñi soxlaal kenn dara nit ñi bëgg la izhad fi dunya yuhibbuka allah wazhad waaw fii ma fii ma inda yuhibbuka naas xadis la bopp ibnu majaha moo ko solo dëddu leen àdduna yàlla bëgg la ku bëgg yàlla bëgg la ngay dëddu àdduna dëddu àdduna nag mooy wut àdduna ba téye ko ci sa loxo fase ko ne ko soxluwuma la taxoo maa jóg comme ni Seydi Mouhamadul Amin meloon wut na àdduna ba àdduna xuy si ko ci wàllam yépp taxawal entreprise ci wàllu média bi ëpp solo ci Afrique wala mu bokk ci ya ëpp solo ci Afrique yàlla may ko nga juddoo ci ñaari néeg yi gën a tedd walla bokk na ci yi gën a tedd ci néeg yi muy néegu nubbuwatu di sa wàllu yaay néegu wilaayatu di sa wàllu baay nga takkaayu jàng ba dañ réer sa jamono kenn rawut la ci bind ay téere waaye takkaayu di liggéey ba yor alal nga ne àdduna de wuy si nga ma waaye soxlaalu ma la dara man duma ma wut sëfoor maay dawalal sama bopp de entreprise buy dawalal boppam ci moom nga koy gisee waaye tamit de entreprise bu amul garde corps nga gis ko ci moom waaye mu ne tamit li may donn donn ak wilaaya donn donn ak nubuwatu jëlee ko ci sama néegu baay sama néegu maam ci wàllu yaay nekk ay yonantu ma man naan ca leer yooya du tere xóotihuma dara maanaam daal ñi xilif ma moom laa tànn ci ma nekk kilifa man nekk njaboot moo ma gënal ma nekk maanaam euh, kilifa gu jiite njaboot waaye ma nekk taalibe moo ma gënal ma nekk sëriñ mu dund ba génn xat na xamul bakk néeg moo yore caabi boppam mooy tijji mooy tëj tabaarakallaahu bokku ca ñay njëkk a xëy bokku ca ñay mujj a wàcc kooku mooy ki hut àdduna ba téye ko jàllar bi ko fase ko mosta sol yére yoo koy xéemee léegi léeg danañ ànd dem ci conférence sax mu jël forotab kese fàtte ca daraajo ma ne ko sëñ bi lii xëpp naa wàccee ci mbooloo mi fokk nga nga nga nga bàyyi xel ñi ngay seen mu ne ah kon nag yow mënuma laa gàntu jël daraaja teg ko ca waaye moom dara loolu mooy dëddu àdduna waaye nag boo bokkut ak yaafus yaccaaral liggéeyoo tus amoo dara sole ay sagar di lekk-lekk bi gën a naqari ñu naan nga nga nga naan maa dëddu àdduna déedéet da nga koo xamul yow boo amoon àdduna tey da ngeen xam ne dëddu ko de nga koo xamul rek waaye wut ko ba xam ko wan ko gannaaw kooku la ñuy tuddee zahid kooku nag moo dal Sidi Mouhamadul Amin dëddu na li ci loxol nit ñi dëddu na daraja ji nit ñi xëccoo mu tere leen a nelaw dëddu na ndomba tànk yi nga xam ne yooyu yooyu sax ñoo ko wut si dëddu na lépp lu dul yàlla dëgg ma rek dëgg ma rek li yàlla ndax yàlla faye na ko ci bisam bi di Sénégal di senegal ba tey mosuñ gis dëj bu toll ni dëjëm bi du kilifaak aada du kilifaak diine te loola lépp moo ko lebal yàlla yàlla faye ko ko ci nit ñi kon yal na yàlla yokk leeram waajur wu tedd woowu yonent bi jàngale woon ne dëddu leen àdduna yàlla bëgg leen kon tekki na ne moom de dëddu woon na àdduna moo tax yàlla bëgg na ko waaye dëddu leen kenn dara su ko defee nit ñi bëgg leen moom de lum defal am réewam rek moo doon xitteem waaye moom nekkutoon fi naan sama réew lii la ma war a defal mokk nekkutoon saaru nit ñooña de moo tax bu ñu demee ba léegi ñu koy xeexal naan war nañ koo tuddee lii bu ko fekkee woon ne xëpp na soxlawuma ñu tuddee ma dara ndax li ma yàlla tuddee moo ko xëpp doole mooy cofeel gi nit ñi de denc ci seen xol yi tabaarakallaahu loola ëpp doole lépp te man ñu tuddee ma dara gi ñàkk maa tuddee dara sama sama tur du far ba yowmal qiyaam xas na fi des taarix bind na ko dootul fi jëm dootul fi jugati ki nga xam ne nag boo ko tuddeewul dara turam wa far taarix fàtte ko kooka mooy xaajoo ko ko tuddee dara waaye Seydi Mouhamadul Amin lu ko luñ ko tuddeewul tamit fañ ko tudd moo gën a kawe ndax foofa fañ kuñ fa xas tudd sa tur wa dootul farati ba yowmal qiyaam kon nag àdduna ngoog yàlla di ko bañloo saxaaba yi muy am médd yonentu bi ne tàñ rekk ñoo koy xëccoo góorgóorlu leen ngeen yóbbuloo ragal yàlla ci wata sa wadu fa inna xayra saadi taqwa kon loolu mooy li am solo loolu mooy li am solo àdduna ngoog laaj ko xaaruuna moomu nga xam ne xadduna xuy si woon na ko ca côtéem yépp ba bu alquran waxutoon lii kenn du ko gëm ne wallahi caabi koppar fooram ya rek ay sëfi sëfi ay gëléem ñooy sëf caabi ya lu xëpp juróom-ñaar fukki gëléem ñoom lañuy teg caabi yi caabi yi xuppi koppar foore kon kooka lañ teg ca koppar foore ci xalal nu mu war a toll dama ne banque yi ci réew mi yépp boo dajale woon seen caabi ya génn gëléem xattan na ko kon kay moom kon xalalam ngeen ñu toll koo xam ne tey alalam ji li mu tolloon tey caabi yi rek juróom-ñaar fukki gëléem xattanuñ ko te caabi senegali Sénégal yi coffre-fort yëpp laa wax ak maanaam banque yi yëpp ak fi ñu denc trésor ak yëpp buñ ko dagalee woon benn gëléem xattan na ko yàlla bu ko waxutoon kenn du ko gëm wa aataynaahu min al kunuusi maa inna mafatixahu la tanuu bil usbati ñu ne ah kanaa ay mboccoor la mën a déere ulul quwa laa wax nag gëléem yoo xam ne yoo xam doole lañ demal seeti aaya jógee ci 76 ci suratul xasas boo demee da ko ci fekk waaye moom mii tey fu mujj suufa ko wan wan naa la ko xalalam ji lépp lu mu ko jariñ tus lu dul dee dem safara moo tax kon àdduna ngoog amut solo yonent bi daana toog doj yi ñëw ne ko dañoo bëgg nga def ñu wurus pour lan mu ne pour nga moom ñu pour xam xalal mu ne déedéet boobaa dama leen su ma leen jëriñoo tamit a ngeen di jeex mu ne waaw mu ne kon dem leen fa de man tànn naa li dul jeex ci luy jeex luy jeex woo ma ca soxla yàlla mi dul jeex rek moo tax bi Jibril ñëwee proposé ko xalal ne defal ko safa ak marwa yëpp def ko ay doji or mu koy jëriñu mu ne ko yaa Jibrilu walladi baasaka bil xaq maa amsa li ali muhammadin ah ah safatun min min daqiqin wala kafun min su min min min min min sawiqin ah lii la ko wax mu ne ko waay waay yaw Jibril mii maa ngi gën ci kii la yoon yónni ci dëgg man ak sama waa kër yépp liñ fi defee tey matul benn mëq sànqal liñ fi defee tey ci dépense ñun ñëpp matul benn tenk boo tibb ci sa loxo ci ruy waaye ànd ak loolu lépp de xiif moo ma gënal doj wi di safaak marwa ñi ma koy defal ay or wala wurus lu ma koy doyee soxlawuma ko kooku mooy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax kon nag loolu mooy li jar a xel loolu mooy li jar a baxi xel mu ne tànn ma lu dul bëgg a nekk rek nabiyan abdan fekk dañ ko proposé na bu la neex nga def la ngay ab yonantu boo xam ne buur nga comme Souleymane fa isa chita nga nekk nabiyan malikan wa in chita nabiyan abdan fa awmaa ila jibril ne ko daal man daal li ma bëgg bal nabiyan abdan nekk ab jaam ab yonantu boo xam ne jaam ab yi rekk rek laay doon tey ma am ëllëg ma ñàkk tey ma xiif ëllëg ma am lu ma mos ndax du ma wax sax ndax dund na bëggee génn àdduna mos ta regg tey ma ma ma sol ay yére bu ëllëgee ma xaw a rafle ci yére yu doy waar waaye sama sama sama sama sama lal bi may tëdd ñagas ñagas ay xob lañ ca solon xobi tàndarma ci lal bi mu daan tëdd moom yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam koo xam ne bu taxutoon yow àdduna du xam te loo bëgg a àdduna ñëw jox la ko nga ne ko soxlawuma ko kon nag kooku mooy Seydunaa Muhammad nañ ko roy fexee jël suñ xalal yeeg suñ bakkan yépp jaay ko yàlla bu ëllëgee ñu xamal jana inna allaha ashtara min al muminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata yuqaatiluuna fi sabilillahi fa yuqutaluuna wa wa yuqutaluuna ñi jàng fa yaqtuluuna wa yuqutaluuna waxdan alayhi xaqan fi tawrati wal injili walqur'aani wa man awfaa bi ahdihi min allaahi fastabsiruu bi bay'ikum lazi baaya'tum bi wa zaalika huwa alfawzu alaziim suratu tawba aaya 111 boo demee da nga ko ci fekk. kon yonent ngoog sallallahu alayhi wa sallam ci dëddu tabaarakallaahu ñëpp war ko cee roy ak ci bëgg yàlla tabaarakallaahu ak ci nangoo jihaad jàllar bi ku timit di ci ñaax saxaba yi ñi ñeme war a dem xeex yi gëm loolu leen ne xeex taxut a dee gëm loolu leen ne leen timit ñàkk xeex terewut a dee dee fu ko yàlla tudd rek foofa lay ne te faras daq daanaka wax man lam yemut moo man man lam yemut bi sayfin maata bi xayrihi taxaalafatil asbaabu waaye fekk wal mawtu waaxidu kon nag loolu rek moo ci am solo aayaat yooyu loolu la doon jàngale ñu bàyyi ci xel te topp ko bu baax te di ko bàyyi xel xam naa boo ma toppee suba ci waxtu wi nag ma ñëw ak yow ci giddaaw bi nga xam ne mooy arrabiu wa xamsuun yàlla di ca wax yaay wala sinaa mu taqullaha wa kunu maa saadiqin gàtt na waaye baxu dara mooy yéen nit ñi ñi xam ne gëm ngeen yàlla ñu ne ko labayka mu ne ragal leen yàlla sax leen ci ragal ko waaye tamit na ngeen nekk xante gooy dëggu ña dëggoo jafe rawat na ci ji jamono jii téeméeri baat yu la ji nit ñi wax juróom-ñett fukk yaak juróom-ñeent yëpp ay kàcc la moom mooy tawut sax téeméer bu manqué benn ba yëpp kàcc la benn ba sax boo xamee nga ci sikk sàkka wax di sànni rek moo xew ba damay wax ne wax yi ñuy wax di ko sànni ku ko sànni ci Euh, mbalit mi fañ ko foofa tabaarakallaahu mooy ëpp mbalit mi. ja ndax kat daanaka wax sànni xew wax ki sa téléphone bi rek sànni ko waaja kooku ne ñun jot nañ li nga wax kooku jëlaat ko sànniwaat ko maa ngi la koy envoyé toogal dégg léegi tey mu xeg si wax jóge ñuy wax di ko sànni tamit dafa mujj maanaam reflété wu tamit maanaam ci jikko yi wax di sànni rek wax loo xam ne la ngay wax gëmoo ca dara li ngay wax pare woo ngir jëf ca dara. ki nga koy wax nag ndeysaan saan ngi ko gëm a gëm a gëm a gëm xam nga ne loolu tooñaa ngi mënut koo paase kon nag yàlla na yàlla defal ñu tawfiq defal ñu taysiir xiir ci boppam boo ma toppee suba ci waxtu wi yaa ayyuhal lazina aamanu taqullaha wa kunu ma'a saadiqina mooy nekk suñ bopp darsu yàlla na yàlla yóbbu ñu ca defal ñu tawfiq ak taysiir defal ñu naataangeeg barke wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.